بسم الله الرحمن الرحيم يا رب إنك القلت وقولك الحق وعدك صدقا دعوني استجب لكم وقلت عيدا فاشكروا لي على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 أو وقف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو اسم بغير بيان أو مد أو تسديد أو همزة أو جسم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمعزب من كل لهان اغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا ارزقنا فضل من قرأه بالسوء والإهلال وزدنا من فضلك والوسع بجودك وكرمك يا رحمن يا رحمن يا رحيم اللهم صل على سيدنا محمد سائر السيئات والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآية الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بهذا القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيام شفيعا وعلى صراط وأدخلنا الجنة بسماعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القران حلاوه وبكل كلمه كرامه وبكل ايه سعاده وبكل سوره سراوه وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنه وبكل نصف نعمه وبكل ربع رفعه وبكل سمن سراء اللهم ارزقنا بالالف غرفه وبالباء بركه وبالتاء توبه وبالساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمه وبالخاء اقلاما وبالدال وبالسهل السكان وبالراء رحمة وبالسهل زلفة وباللام وبال وبالسين السراء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالداء بيان وبالتاء تارة وبالساء سفرا وبالعين وبالخير خلا وبالفاء فلاحا وبالخاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون مغردا وبالواو بشرة وبهذه هداية وبالنافع في اللفظ دفاعا وبالإله يسرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم بارك سواد ما قرأناه ونور ما تلوناه إلا روح سيدنا محمد عليه السلام وإلا أرواح أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا خاصة وأيدي المؤمنين والمؤمنات والمؤمنات والأحياء منهم أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم أنصر من نصر الدين واخسر من خسر المسلمين آمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي إنك القلت وقولك الحق ووعدك صدق ادعوني استجب لكم وقلت عيدا واشكروا لي ولا تكفروني فها أنا أدعوك وأشكرك لهذه القصيدة وأقول راجيا منك ردا وقبول الحمد لله الكريم سلم على استقالي بفرود وسنن الحمد لله الكريم سلما على استقالي بفرود وسنن سكرت لأنه قد سخني لوطن بي نفى معاقني وخادني إليه بالتهاني من بعد ما سبب التخير وجرني في إلى العلوم والفوز والأمل بالمحلوم ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي خطي أنا تبعا هل الذي من بمراد اقتدى في سر والجار يكون مقتدا هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربي فسان الدين وسيلتي لمالك الرفيع di leen ziara di leen baal waq te di leen baal àq 18 safar lañ ko tuddee fii ci Chine lañ ñëw plus particulièrement fii ci Guangzhou ñu fi dajale suñu mbokk boo xam sénégalais la comme ñun Omar Amar nekk ci daayira bi nga xam ñu ngi ko tuddee almanaafi saafix fi ci Chine balaa ñuy woyal waxtaan bi dañ koy nuyu mu nuyu ak yéen ñu soog a tàmbali waxtaan bi Omar ñu ngi lay nuyu di la ziar. ñu ngi lay fay di la nuyu di la nuyu ñu seetaan yëpp ñu nuyu communauté sénégalaise bi nekk Guandio yëpp ñu murid yee tijaan yee xaadir yee ñi fi nekk ñëpp ànd nañ ren màggal màggal bi ci nañ ko daan defee chaque année donc euh, di rafetlu teewaayu ñëpp di xam ne nii rek la comme ni ñu ko daan defee édition yi bii yàgg na chaque année nii lañ koy màggale mhm. murid yi fi nekk tijaan yeeg xaadir yeeg chrétiens yeeg communauté sénégalaise bi yëpp même ba ci suñu mbokk yi nekk sous région bi yëpp ak suñu xarit yeeg chinois yi ñëpp ñëw ñu di ko màggal comme ni ko sëñ Touba santé uh-huh. santa euh, santaane di wax ne bu bu heure bu ñëwee muy 18 safar uh-huh. képp koo xam ne sama mbégte la sa mbégte la foo mënti nekk foo mënti nekk ci àdduna bi maa ngi lay uh-huh. ñaan nga sant la ma ci suñu borom donc loolu lañ doon jéem a feddali loolu lañ doon jéem a taxawal fii ci Chine malgré sori na dëkk bu sori la et puis voilà condition yu bëri du waaye jéem nañ suñu kéem kàttan ngir màggal ko ni ko sëñ bi bëggee fii ci Chine bi ñu xëyee tey suba wàcce nañ fi ñaari kaamil jàng nañ fi xatlu bi ñëpp daje nañ saafonte nañ bernde nañ comme ni ko sëñ bi santaane jàng nañ fi ay xasida lim bu am solo tamit ñaari kaamil yi tamit wàcc na bernde yi tamit def nañ ko ci suba bi ci guddi tamit dañoo fas yéene incha allah à partir de zéro heure ba cinq heures du matin dajewaat fii waxtaan ci maanaam lan mooy kenoog màggal gi mhm. bu ñu paree ci loolu aussi maanaam waxtaan ak autorité fi daje ak suñu sëriñ sëñ Moustapha Mbacké mi nga xam mu ngi fi mhm. bu ñu noppee ci loolu nag màggal guddi gi ci xasida yi mhm. ba fajar bu ko defee ñu tëj koog zikrullahi donc euh, noonu la demee di ci sant mbokk taaliba yëpp ndaxte seeni effort moo tax lii mën a nekk ndaxte euh, mbooloo mi ñu daana fi ëpp nii yu bëri dañ fi daan nekk mais conditions yi fi amoon ak Covid beeg yooyu moo tax mbooloo mi wàññeeku bu baax a baax waaye teewul aussi jéem nañ màggal ko ci suñu kéem kàttan ndaxte li sëñ Abdoul Ahad Mbacké daan wax mbooloo ci ñett la tàmbalee. Mhm. donc bu fi ñett nit nekkoon sax dañ koy màggal rawatina nag ni fi ni mu demee ren jii nii moo ëpp daaw. donc sant nañ bu baax di sant ñi fi teew ñëpp. Mhm. di ñaan suñu borom doole ñoo dimbali ba déwén ñu gën koo fekkee gën koo mën gën koo màggal gën a am doole tawféex hmm. gën a am maanaam doole poche ak i xéewal yu bëree bëri bëri suñu hmm. mbokk yi nga xam ne ñoo fi daan nekk nag hmm. muy jëwriñ jëwriñ daara bi nekku fi ak ñi fi daan nekk yëpp chaque année daan ko màggal ndoog nga xamante ne xëy na dem nañ Sénégal wala dem nañ feneen ak jamono ji xaw a jaxasoo ba ñu si bëri teewuñ ko ñu leen di ñaanal ñoom ñëpp fañ nekk suñu borom defal leen di xéewal ba déwén ñi nga xamante ne ñëpp bëgg nañoo ñëw ñu ñëwaat fii ñu àndandoo màggal bis bi liggéeyal ci yàlla ak yonent bi ak Sëriñ Tuubaa Mbàkke donc di souhaiter ñëpp bon màggal di ñaan ñu teew ak at yu bëree bëree bëri di woowaat mbokk taalibe ak ñëpp ci guddi ci événement bu guddi incha allah mhm. ci la ñuy continuer wéyal liggéey bi mhm. donc euh, voilà loolu laa amoon ci ay kàddu waaw Omar balaa ñuy jeexal dañuy wax Bamba fépp mhm. koy màggale bés bu jotee ñu koy santale suñu borom gis nañ fi xeet bu ne am na murit am na tijaan ba ci ay ay chinois sax effectivement gis naa leen ci biir loolu noonu lan lay ci Bamba partout slogan boobu nga xam moom lañ tàmm di wax yéen ngeen ñëw ba Chine ba fii gën a dëggal loolu communauté yëpp ngeen jaxasoo ak ñoom ci jàmm ci salaam loolu lan lan la lan lan lay firndeel si day day day gën a firndeel ne sëñ Touba amul frontière bu ñu naan Bamba fépp Bamba partout Chine doy na ci firnde ndaxte Chine ku nekk xam na ne fi c'est euh, à l'autre bout du euh, du monde ni mu soree mhm. teewul ba léegi nit ñëw fii màggal bés bi mhm. donc Bamba fépp Bamba partout day day gën a yaatu hmm. boo demee ba Brésil ña ngay màggal hmm. nga dem ba Australie murid yaa nga fa di màggal nga dem Canada ak foo mënti dem ci àdduna bi Afrique partout à travers l' Afrique foo dem murid yaa ngi màggal hmm. donc lii day gën a maanaam day gën a day gën a day gën a firndeel liggéey Sëriñ Tuubaa bi suñ suñ borom da koo nangu dafa nekk liggéey bi suñu borom gën a nangu te lu ñuy gën di dem di ko gën a gis Bamba fépp Bamba partout day doog a tàmbali kanam la jëm kanam la jëm te incha allah comme ni nga ko gisee nii ay yaa ngi fi suñ mbokk africain yaa ngi fi sénégalais yi amul xaaj amul seen communauté boo ci mënti xool rek wala tarixa boo mënti xool ñu ngi ci biir donc bamba fépp bamba partout Chine da koo gën a firndeel Chine da koo gën a dëggal voilà ngeen ñëw ba ci dëkk bii di Chine samp fi seen kuréel samp seen daayira condition yi nan lay demee bu ngeen bëggee def ay événement ndax dina yomb chinois yi nañ leen bàyyi ngeen libre ci dëkk bi def ni comme ni ngeen ko bëggee comme ngeen sentir seen ñu ngi biir Sénégal compliqué na compliqué wul. Mhm. ndaxte ñu ngi fiy bëgg a yàgg. Mhm. te hôtel bi du première fois ñu fi màggal màggal nañ fi gàmmu nañ fi ay édition yu bëree bëri bëri. Mhm. lool nag tax na mu gën a yombal liggéey bi xëy na bu fekkoon amuñu ñoom ak ñoom partenariat bi nga xam moom la am chaque année ñu koy def. xëy na bu ñu demoon beneen hôtel peut-être du ñu comprendre ni ñuy doxalee nii. ak ni ñu koy ci euh, ni ñuy organiser nii. mais euh, compréhension bi am na seen suñu diggante ak ñoom. Chine nag c' est un pays nekk xam na ne dëkk boo xamante ni xëy na ay fësal ci wàllu diine. ak yooyu dañ ko kii ci dara trop sawaruñ trop daal mhm. mais teewul aussi wax dëgg fa yàlla amuñ fi benn jafe-jafe pour màggal suñu màggal mhm. dëgg fa yàlla pour dire vrai amuñ fi benn jafe-jafe organisation bi gis nga ni ko defee ñu ngi ci suñu salle tëju yendoo màggal comme ni ko sëñ bi bëggee donc mhm. voilà quoi ñu mel ni gis nañ ci biir salle bi consul bi. Mhm. seen relation lan lan la demee consul bi nga xam ne moom moo représenté moom suñ mënee wax état Sénégal fii nii. Mhm. gis nañ ko ci biir salle bi bi ñuy jàng xat mu beeg. Mhm. bi ñuy añ ak yëpp. mu familiarisé wu ak yéen. relation yi nan la demee. bon relation d' abord des compatriotes. premièrement. ak relation suñu kilifa. Mm-hmm. lii sénégalais yi nga xamante ni ñoo nekk ci zone bi mu xam mooy consulat bu Guangzhou yëpp moo leen couvrir mm-hmm. relation bu rafet lañ am moom mm-hmm. lépp lu ñu xewle day teew d'abord du teew kase yam ci lu yàggu dara la ñu invité ci consulat bi def participation financière bu am solo ba noppi ñëw yendoog ñun te bu guddee day ñëwaat te chaque année noonu lañ koy defee ñoo ko fi jiitu woon tamit noonu lañ koy defee mooy sénégalais yi moom bu ñu génnee ñun ñëppay bokk lépp dëgg génnee rek dañuy maanaam sénégalais ñuy bëggante waaye bu ñu génnee ba nekk bitim réew hmm. day gën a fës day gën a fës te dañ koy gën a dundal donc consul bi suñu kilifa la hmm. te li ko war ci sénégalais yi wax dëgg fa yàlla ñu ngi koy def hmm. li ñu soxla ci administrativement manqué wul dara. ku soxla papier boo xamante ni consulat bi la koy jox boo demee danañ la ko yombalal. Mhm. des fois da ngay dem sax ñu ne la garaawul timbre bi solo. Mhm. te xaalis la ñuy génne di ko def. Mhm. ainsi donc euh, relation yu baax lañ am. ak consulat bi yi fi nekk ci li xam man. dëgg voilà ndax fii am na ay sénégalais yoo xam seen dundin. xaw ko tax a demee noonu. loolu bu amee taxawaayu kuréel bi taxawaayu daayira bi fii nii. yan condition lay am si ñoom. waaw koo xam ni ñëw na fii mhm. nekkinam taxu ko demee noonu mhm. est-ce que bu ñëwee fii nii communauté mouride bu nekk fii ni mhm. daayira bu nekk fii nii yaatu nañ ubbeeku nañ bu man ko tenir te ko ci ay condition yoo xamante ni comme niñ ko miinee di faral di def ci partout dans le monde kër Serigne Touba fu nekk dëgg la waaw fii moom Chine comme ni ma la ko waxee léegi c'est un pays spécial li ci njëkk mooy ci wàllum visa yi <laughs> yombul pour nga am fi résidence mhm. yombul et puis papier yi aussi pour toog fi yombul du mhm. ñëpp ci ñoom lay ci ñëpp lay jàppandee mhm. xëy na am na ñoo xam ne dana xaw a dëgër ci ñoom waaye teewul euh, ñi nga xamante ne am jafe-jafe yooyu ci côté papier tout le temps nit ñaa ngi ciy jàpp des fois a génn a fay xaalis bala ngaa génn tout le temps communauté bi ñu ciy jàpp daayira dana ci def lu mën sénégalais yi fi nekk tamit ñëpp benn lañ dañ ci def lu ñu mën ñi nga xamante ni des fois nit feebar fi nit ñi dañ cotiser ket te kenn du ko yëg den yenn saa xanaa bu demee ba dépassé mu nekk montant boo xamante ni il faut ñëpp yëg ko ci lañ koy dugal ci groupe yi muy ci daara bi muy ci Sénégal de ak sénégalais yi fi nekk yëpp ak mm-hmm. association aussi mm-hmm. di jaajëfal le président Moustapha Dieng mi xam président sénégalais yi fi nekk mm-hmm. ak mu àndal ñëpp tout le temps liggéey bu rafet la def ci loolu donc euh, nit am na fi problème ba tey ñu faj ko te kenn du ko yëg des tamit problème bi xawee dis trop ñëpp danañ ko yëg te ñëpp jàpp ci comme li ma naan rek solidarité sénégalaise bi tout le temps heure bu fi problème amee sénégalais ñu ciy na fi xam nga fii ko fi faatu lu yóbbu ni mu jafee mhm. minimum dix millions dana génn te tout le temps ñëpp danañ cotiser ku ci nekk def li nga mën ñu fexe ba rapatrier ko ci sutura ba egg ba jox ay mbokkam seen corps ba noppi en même temps participer loo xam ne ay jaxal lay doon ak yooyu noonu mhm. nit tamit feebar na fi communauté bee koy faj donc euh, voilà quoi solidarité bi moom macha allah nit ñi nag jafe-jafe du ñàkk mhm. ndaxte boo xasee ba génn nit ñi yemuñu wërsëg yi yemuñ ñii danañ am lii am lu bëri ñu am lu yemambaay mais teewul ñu ngi koy jéem a maanaam fexe ba nga xamante ni mu xaw a équilibré ñi ñi di jàppalante seen biir ñi tane ñii di jàppale ñii ñu mën di dimbali ñu yërëm ñi nga xamante ni xëy na seen doole jotul seen ginnaaw trop quoi loolu la ñuy dundee fi daal muy sénégalais yi muy murid ñëpp sénégalais yi daal de manière générale loolu lañ noonu la ñuy dundee lépp fii ku ni màggal ni Serigne Touba ku ni Serigne Touba ni Touba ren gis nañ condition yi nu mu demee gis nga vidéo yi ñu ngi ñeen partout ci internet bi ndox mi sonal na nit ñi comprendre nga la mu ngay inondé mhm. te terewul nit ñaa ngay takkaat oto yi di gën a dugg Touba mhm, mhm. ban message ngay am booy joxe si loolu xanaa di message bu daw yaram ndaxte ku gis euh, ni mu demee Touba inondation yi bëri na waaye ak sant yàlla la ndaxte sëñ Touba li mu am ak bés bii da ko am ci ak métit gu tar ak jom tey jii bu ñu naan dañuy dem Touba di màggali dafa am inondation waaye teewul bu demee ci ay kër la dal dañuy ami bâche am ay ventilateur am ay clim sëñ Touba liggéey bi mu liggéey ba am ko ba tollu fii. Mhm. maa yomb ak nga xamante ni fa la nekk cinq ans. Mhm. suufu garab la nekkoon ku xam Gabon xam ne day taw neuf mois sur douze taw bi di wàcc kaw sëñ bi. bu mhm. dégg bëccëg. mu koy dund dund yu tar yu méttee métti. donc loolu rek war nañoo jox maanaam ñun courage ba bu ñu xool ay inondation ay yu dem yooyu ñun ay taalibe lañ maanaam sëñ bi dañoo dañoo war di roy ci sëñ bi. tax ci sëñ bi lu am lépp ci métit la ko am ak ay mm. tartar mm-hmm. donc tey bu ñu demee ba Touba di màggal ñu ne inondation loolu warul mën a yàq màggal gi da ko war a mën a gën a mm-hmm. dafa war a mën a sax gën a maanaam ñu gën a dafa war a gën a montrer suñu détermination ak suñu bëgg ak gëm sëriñ Touba inondation yi nag ku ko gis euh, xam ne métti na mm-hmm. waaye teewut euh, xay na fii ak at yi di ñëw gouvernement bi nga xam moo jiite réew mu dina ci jéem ay pexe parce que jàppal ne fii ba dix ans yi di ñëw yëpp ci nawet la ñuy màggalee ci nawet nag ñu ngi Euh, ñaax nguur gi ñu fexe ba nga xamante ni at yi di ñëw ñu jéem cee jël ay disposition yoo xamante ni du demee ni mu demee nii ren hmm. waaye nag ma inondation bi yàqul suñu màggal na suñu pas-pas maanaam dañuy gën a yokk sax a yokk positif ñu gën a xam ne Sëñ mu am lépp ci ay tartar ak ay metti la ko am ñun tamit ñu gën a maanaam gën a gën a gën cee dem daal hmm. murit ndigal murit ba noppi waaw waaw murit jëfee <laughs> murit voilà waaw noonu ah, sëñ Omar ñu ngi lay ziar di la di la di la di la di la remercier ci disponibilité bi wax dëgg yàlla kontaan nañ bu baax a baax kàddu yi ngay tàggoo rek ñu tëj émission bi incha allah waaw euh, xanaa santaat santaat ñëpp sénégalais yi fi nekk yëpp di santaat waa sant njiit daayira bi ñi fi nekk ak ñi fi nekkul ndaxte ñi fi nekk daanaka daayira bi boo xoolee daaw ñi ko doon jiite ñëpp nekkul fi ak daaw jége daanaka man mii sama jëmm ju xeebu ji maa fi nekk ak sama jëwriñ ma fi nekkal muy ñoom sëñ Aziz di sëñ Murtada ak ñeneen ñi ku lim juum daal hmm. waa ñooñ ñoo fi nekk waaye teewut jéem nañ liñ ci mën hmm. donc ñi leen ci sant bu baax a baax a baax di leen gërëm bu a baax di ñaan ñu daje ca ngërëmal Sëriñ Touba di sant euh, suñu autorités yi nga xam ñoo fi nekk di sant association sénégalaise bi di sant daayira Cheikh. Hmm. dëgg fa yàlla ànd bi rafet na. Hmm. ñu nag ñoom. surtout waay ànd bi rafet na trop trop hmm. trop trop. yaa na sax ñëwaat ñu nag ñoom màggal gàmmu màggal gàmmu. chaque année. te loolu jafe na fu mu am. jafe na fu muy amee. ce qui ce qui explique que ni Serigne Touba maam El Hadj Malick maam Limaamu Laay bu Kunta lépp lépp benn la ni ko sëñ Abdoul Ahad Mbacké daan waxee. Mhm. diw murid la kii tijaan la kii xaadir la dafa mel ne da nga ne ñii ñoo bokk ndey ak baay. Mhm. kii daa ñuul kii xees kii xeereer. dëgg la waaye ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. dëgg la donc rafetlu nañ ko bu baax a baax ànd boobu ñu ànd ak suñu mbokk tijaan yeeg. Mhm. laayeen yeeg xaadir yeeg ñëpp ak am na ñoo xamante duñu ay duñu ay musulman mhm. te maanaam boo duggee ci xidma gi ñu ngi ci sonn dëgg la koo ci a la day montré lépp benn la Sénégal lépp benn la mhm. yàlla na yàlla def jàmm Sénégal ñi fi nekk fii ci Chine di fi ut wërsëg mhm. yàlla na suñu borom dolli ñi fi nekk di jàng étudiant yàlla na suñu borom may ay diplôme ñi nga xam ne dañ fay nekk di liggéey muy administratif bi wala may ñu teew ay at yu bëree bëree bëri ñëw rek suñu borom yokk xéewal yi yokk wërsëg yi yokk sutura yi asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf Cheikh bi di leen jaajëfal yéen tamit nag mm-hmm. di leen jaajëfal bu baax a baax ci interview bi ngeen ñi nga xamante ni man jox ngeen ñu ko mm-hmm. pour ñu gën a mën a jàllale suñu ay message su màggal gi yooyu mm-hmm. di ñaan ñëpp Euh, suñu borom may ñu fekkee ko déwén yu bëree bëree bëri te déwén dàq ren xéewal yi gën a yaatu jàmm ji gën a yaatu di ñaan jàmm ci Sénégal la di ñaan jàmm ci Sénégal bu mm. baax a baax a baax a baax ndax bu jàmm amee rek lépp neex di ñaan nawet bi nga xam ne ci lañ nekk tamit suñu borom def mu nekk nawet bu ànd ak mm. barke mm-hmm. te bu nawet bi neexeet réew mi neex mm-hmm. بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي إنك القلت وقولك الحق ووعدك صدق ادعوني استجب لكم وقلت عيدا واشكروا لي ولا تكفروني فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه القصيدة وأقول راجيا منك ردا وقبول الحمد لله الكريم سلما على استقالي بفرود وسنن الحمد لله الكريم سلما على استقالي بفرود وسنن سكرت لأنه قد سخني لوطن بي نفى مع القني وخادني إليه بالتهاني من بعد ما سبب التخير وجرني فيه إلى العلوم والفوز والأمل بالمحلول